die. back.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 am my la am na fa muy tàmbalee waaye am fu mu yem ndax lii xéewal la tur yàlla wi ngeen ubbee bis bi ginnaaw ban jàngee kamil te seen jëm yi ku leen gis ngeen si kat xam ni yéen sikkarantu wóolen da ngeen si kat loolu c'est très important kon lii ngeen def nii jëf la joo xamante ni rëy na ba am na dayo ba foo ko tàkk weesu na ko rawatina laa ilaha illaa ji ngeen di wax nga xam te ne mooy li nga xam te boo ko waxee rek dugg na ci géeju tawxiid wéetal na yàlla dàqal leneen lu dul yàlla amut xamante ni boo koy wax da ngay wéetal yàlla ba ñaari tuni du laalante kon lii ngeen def nii wax dëgg fa la jëf la jure joo xamante ni maanaam milliard milliard mënu koo jëf kon nag yéen ñi ko jëf ak sëriñ bi ak Cheikh Ibrahima Fall ngeen koy defal ak bàyyi bi jun sàmm naar mi nga xamante kenn ku ne ci yéen xam na cër bi mu am ci Cheikh Rafal ngeen di ko dund di ko yëg kon wax dëgg fi yàlla yéen liggéey bi ñu ak yéen ko ànd kon taxawaay bii ngeen ci taxaw muy loo xamante ni mbooloo koy def ngeen taxawee ko nii wax dëgg fi yàlla damay wax ni la sëñ Moussa Mbacke di wax jeneen jëf ju ji seen jëf jii ko doole kon sëriñ bi ci kàddu yi sëriñ Saliou ndigal loolu loola wax ni nañ ko jotee mooy kàddu yi cant kàddu yu ngërëm baawo nag ci ci ci ci ci ki nga xamante ni mooy bunt bi ndax loo gis rek maanaam tàgge boo gis am na ana diw kon sëñ Gilaay mi nga xamante ni moom ngeen kóllëranteel lii lépp jaar ci moom moom muy lépp kër gi ndax amul maam moom amul beneen activité ndax ñun amuñu benn activité ñun suñ adduna burut liggéeyal suñ maam keneen ko am nag mën naa am activité ngir loolu mu activité waaye ñun xooli jiw ñu te jëmu ju ñu kenn mënut fexe ba woo ñu ci leneen lu dul liggéey suñu maam ndax am na fay te moo ñu liggéeyloo ndax moo fi bàyyi liggéey kon xam gi ngeen xam loolu yéen ba wuuteewu leen ak jëmmi si du ak sëñ gilaay mii wuuteewu leen xool jëmmam jë ka demoon ca ba nga xamante ni sëñ Saali ba waaye dañuy moo njëkk a bindu ci liste ngir Bamba Ibrahima cuun xër nga la kox wax ci Bamba kon yéen wuuteewu leen ak ka njëkkoon a bind ca ba sëñ Tuubaa soxlaa ay soldaar wuute wu leen jëmmi Baay Giraay jii ngeen di xool ak jëmm kooku demoon kon loolu nag mooy kóllëre waaye nag ki ngeen lebal bor bi am na fay gu mat sëkk te du fay rek yem ci waaye di ngeen leen wis te seen ñëw gi daaw aw ñëw gi ren ak jéego yi ak saxal gii mooy wan ni li dëgg la yéen a ngi mus ci li sëriñ bi joxe Cheikh Diouf sax maanaam nag mat na booram ndax doonul ku ñuy présenté ku maanaam ku amul CV la ñuy présenté waaye waaye moom CVM rëy ne riis na te yéen ñëpp gis ngeen ko seen bopp nga xamante ni damay faral di wax damaa àndoon benn suuf si laay fal ndar ca benn barab mu ni mu ni ma toogal ñu toog ban waxtaanee ba pare ma ni leen man nag fu dem danaa fox leen rawatina suuf si laay fal ndar bii ma àndal moom maam si laay fal ndar ak sama maam ñoo àndoon ca guerre ba buñ fa soon ñun duñ existé kon amut lu ñuy nit di gën a yey ci diine islam amut lu ragal amut ñun amutul lu ragal kon ñun. ci xare lañ judd Amadou lu ragal bu ñu fa desoon du exister ñun ñëpp te kon joxe woon na boppam joxe na léppam ni ko ni ko sëñ Moussa Ka waxee ci sëñ Fall Fall ak Cheikh Ibrahima Fall yaa ngi ko joxe sa doom joxe nga addi gëléem yu sëfi nguur du sëfi koom soldat sa yaa joxe sa doom Fall Fall am na texe te kër moo ñu ko woon benn cër suba kon ñun cër boobu rek doy nañu kon yéen xam gi dafa am solo ndax am koo taxamoo ko ñàkk doo gën xam kon ci ci ndigalu Serigne Saliou mi mooy kàddu yi lott yooyu ñu doon jottali waaye jotaay bëris na ndax sëñ Ahmad mii mbay mii maamam Cheikh yi mbay la Cheikh Rafal waxoon ne ko ak Serigne Thioune Samanaar ndax reeri àjjana yi Cheikh Sadio yi xamal ni Serigne Thioune Samanaar xamal ni Cheikh Sadio moo koy togg te ñëwam bi surprise la fii lañ daje ñii mu ñëw lépp rek ngi taaree jotaay ngi lay ñaanal baax di ziar baax suñu kilifa sëñ ak mboole ñëpp rek kon cant yi kàddu yu cant la yom te cant bu am fu muy tàmbali waa am fu muy yem di sant tamit Baye Sidi wax dëgg fi yàlla ci initiative bi média bii nga yor ak lii ngay liggéey sëñ bi yow boobu ci suba ba léegi yaa ngi fi kon yow tamit jaar ngaa ñaanal bi ñaanal ku baax kon foofu la ñuy wàcce kàddu yu ndigal rek jox sëriñ bi mu ñaan ko defee ñu ñu ñu yeneen yi itte yi bàyyi xel tamit guddi gi ndax guddi gi tàmbale na nii ci nii ñu koy dundale ak nañ ko daan dundale kon fu waay toll rek na wax amin Eren, seen jaay mu ñaan incha allah amin amin amin